teer yu amee laago amal nañu tey doxum ñaxtu ngir nguur gi mën a sàmmanteeg dogal yi mu jëloon ci commission ad gannaaw bu ñu amee audience spéciale ca primature. président de la république Macky Sall bëgg régler problème bee tax mu ne pour ñu def commission ad hoc ñu tënk ko ci quatre points ndàmpaay yu ñu war a jox ax nu nuy fexee fon bu nuy créer boo xam ne ko yokk suñuy pension parce que suñuy pension dafa néew benn point bi muy logements sociaux yi parce que ñu bëri amuñ fu dëkk. quatrième point mi emploi réserve. ñu jàpp ni dogal yu tukkee ci commission le waroon nañoo sàmmanteeg moom door ko ci payum pension yi waaye loolee ba tey kenn jëfeew ko. ñoom ñoo ne woon xaalis bi tege na ñoom ñoo ko wax kenn seexalu leen lem kenn seexalu leen suukar ne lépp pare na ba nu signé ko ba war a fay la moo téye xaalis bi ñu war ko génne jox ñu ko te ñun ñu ay borom njaboot ouverture école yaa ngi nii fi mu toll nii kenn inscrire sa doom amul kenn ku inscrire amul. gannaaw bu ñu bëggee amal bi la doxum ñaxtu ñu daal di leen tasaaroo ak i lacrymogène tëj seen i siège police yi taxaw seen buntu fondation te ñu jàpp ci ñu bare. ñun gaz lacrymogène mënuñu téye donc euh, li may regretter rek mooy suñu camarades yi nga xam ne tee nañ leen au commissariat te bu ñu jógee fii dañuy dem directement commissariat pour jéem a wax ak euh, l' autorité pour mu bàyyi leen parce que dañ doon ñaxtu ay droit rek lañ doon laaj. militaire yu amee laago yi fas yéene continuer xeex mi gannaaw bu ñu leen teree ñu amal seen doxum ñaxtu fas yéene wu ñoo benn yoon fii rek respecté wu ñu engagement yu tukkee ci commission ad